seydina mawlana muhammadul amin wa ala alihi wa sahbihi zawil ridwaan wa tamkin wa man tabi'ahum bi ihsaan ila yawmi din assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh ñu ngi nuyu mboolem mbokki jullit yi mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo teew jataay bi di ñaanal suñu borom Euh, jéggal ak yërmande suñu maam ji nga xam ne moo fit wàññi ko bu yàggut muy sëriñ As Mbàkke di xalifa sëriñ Moussa Diagne euh, d'ailleurs sax ak génn àdduna xaw naa impacté ci euh, jataay bi ndax léegi la ma sëriñ Masamba moo sëriñ Moussa Diagne di woo di ma xamal ne circonstance yi moo tax mënta teew waaye commandé na ab loo bu mag ci livre yi ngir mag koo seddalewaat ci yenn librairie yi ak yenn université yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal mooy may profité ci occasion bi ngir euh, jaajëfal ko ci taxawaay bi ndax bi ma amee projet bu bind yàlla dogal na moom laaj njëkk waxtaan bi ma ko woowee xamal ko projet bi daf maa wax ne ma boo bindee de def lu la war ndax booy wàññi ba ci say juróom-ñaari maam tàmbalee ko te maam Cheikh Anta jaar te maam Mor Anta Sali ba ci say juróom-ñaari maam amu ci kenn koo ne mos naa teg xale kon boo bindee rek def lu la war ñu ngi koy sant bu baax a baax baax ci taxawaayam di sant bu baax sëriñ Cheikh si mu doqee mi nga xam ne moo yor kàddu Daaru Salaam moom it fan yii yëpp ñu ngi doon waajal bis bi ba jotoon sax réservé fii ñu nekk ngir bu ñëwee durant bi nekk Dakar mu nekk fi euh, ba bis bi jàll léegi damay woo di ma xamal gàllankoor boo xam ne moo tax mu dëñam ba ma yónnee sax discours bi nga xam ne moom la waroon a tenir ci bis bi kon ñu ngi koy jaajëfal moom it di suñu wayu di suñu euh, euh, xarit di suñu lépp di bu baax Euh, mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk dafa naa ma tuddee sëñ Xaadim Sall bi nga xam ne suñu wajur la di suñu xarit moom bi téere bi génne rek recommandé bu bare bare bare bare nga xam ne dama koy wax sax ne euh, moom ak jàppam ak jàppam xaarul ba téere bi génne mu koy mu koy soog def waaye lu jiitu téere bi génne bokk na ci ñi nga xam ne dañu doon encouragé fi mu toll di ñu wutal ay suuf ba ba ci lu bare bare ci téere bi am na ci loo xam ne ci moom mii lañ ko jëlee kon ñu koy sant bu baax sant suñu Cheikh Ndao mi nga xam ne suñu waajur la suñu xarit ñu am ànd ak mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci jataay bi day kilifa ku lim juum di sant bu baax baax mbokk yi ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne am nañu ko ci euh, livre bi rawatina promotion livre bi ndax damay wax ne lii xay na suñu borom da koo jaarale ci suñu jëmm ji rek ñu bind ko waaye wóor na ma ne am na ñoo xam ne lañ ca am ci teewal ñu amu ko ci. ndax ñii dañuy bind ñii di promouvoir ñii di jënd ñii di partager kenn ku nekk ak la xam ne moom ngay def ba nag sax ñoo xam ne ñëwuñ waaye seen taxawaay ci ci ci cérémonie bi ñu ngi koy def à distance nga xam ne kon loolu day firnde ne maanaam kenn ku ne am nga yéene ci li nga xam ne moom la ñu def kon ñu ngi sant mboolem ñi nga xam ne jàpp nañ ci ci anam bu direct wala anam bu indirect di sant bu baax a baax euh, invité yi nga xam ne ñoo ñoo fi nekk muy professeur yi professeur Maysa Pam mi nga xam ne ci kër gi la bokk ak euh, docteur Khadim Bamba Diagne mi nga xam ne démb rek lay partagé note de bi nga xam ne mi ngi koy def na ko ci livre bi saa su ne ñu ngi jokkoo moom di weccante moom ay xalaat mu ñuy conseillé ci ci bëree bare ak euh, monsieur le ministre mi nga xam ne léegi na fi bàyyeekoo léegi muy sëñ Euh, Cheikh Pape Gaynde Fatma ak mboolem ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon rek maître El Hadj Diouf mi xam ne ci kër gi la bokk ku lim juum daal ñu ngi sant ñëpp di sant tamit waa presse bi di jël sant cant boobu di ko toog ci loxol Serigne Amidou Diop mi nga xam ne ci kër gi la bokk keroog bi ma koy woo di waxtaan moom ci euh, cérémonie de dédicace bi nga xam ne moom laa jàpp tey yëngul rek ci ci ci conseiller ma ak xelal ma waaye daf cee dox ay jéego yu bëree bëri boole mag si Abib Mbaye mi nga xam ne moom dama ko wax rek li ma bëgg toog lépp moo ko coordonné boppam damay jékki-jékki rek ñu woo ma dama am nga émission tel ou tel télé sant bu baax sëriñ Abib Mbaye mi nga xam ne moom ci kër gi la bokk ndax keroog bi ma ko wooyee di waxtaan moom ci loolu dane ma Daaru Salaam man awma dul moom ndax sama wayu Daaru Salaam la sama man daal Salaam la lépp lu ma am rek daal Salaam dañ ko denc kon ñu ngi koy sant bu baax baax a baax di euh, daanaka duñ guddal ndax Euh, daanaka li ñu fa doon wax yu bëree bëree bëri kilifa yi fii yi ma jiitu doon nañ cee indi lu bëree bëri ndax euh, bind ki nga xam ne moom laa bind ci maam Cheikh Anta day rek jëmmal maanaam solo soo xam ne euh, xam-xam am na ko ci yoon mooy ndax Sëriñ Tuubaa dafa orienté jihaadam ko ci xam-xam ak ci ragal Yàlla yëmu rek ci théorise ko waaye da ko pratiquer yar ci ñi nga xam ne ñoom la ñoom la àndaloon Euh, wane ci lu bëree bëri loo xam ne ba tey jii gisaguñ ko bind lu toll ni Sëñ Tuubaa bind ndax on parle de de plus de sept tonnes cinq cent ci quantité boo xam ne Sëñ Tuubaa bind na ko ba tey jii gisaguñ ko bind lu toll noonu kon ki képp koo xam ne dañ lay askanale Sëñ Tuubaa nga yor santam defe naa ne war ngaa mën a liggéeyal Sëñ Tuubaa fu ne waaye liggéey Sëñ Tuubaa ci xam-xam nag liggéey Sëñ Tuubaa ci xam-xam moo ñu gën a poussé ci ñu dem di def ay gëstu ngir la nga xam ne moom lañ doon gëstu moom ko jëmbalaat ci ab téere téere boobu moo moo jur lii ndax Cheikh Omar bi koy wax léegi ci alxattu yab xasamani bada kaati bii wa kaatibul xatti taxdal xatti man fuunu moo fi des donte ki nga xam ne moo bind moom jóge na fi ba ñu denc ko ay téeméeri téeméeri at lam bind bàyyi bi moom day continuer di fi des te tey jii on en face des défis yoo xam ne euh, jot na tey xalaat ci yan voie dañ ko mën a redéfinir rawatina tradition orale bi nga xam ne lu bëree bëri ci lu yàq ci moom moo ko yàq ndax bu fekkee ne dama nettali dara ci ay wax euh, kama ko nettali amaana bu koy nettali keneen mën na cee yokk wala mu wàññi ci keneen ka kañ ko nettali tamit amaana bu koy nettaliwaat mën na koo yokk wala mu wàññi ci nga xam ne mën ngaa dem ba benn histoire mën nga cee am fukki version ko bokkut kon defe naa ne euh, bind rek mooy Euh, solution bi nga xam ne mën nañ koo utiliser ngir mën a euh, résoudre problème boobu di sant bu baax a baax a baax Pape Djibril Fall mi nga xam ne bëri na luñ dox ci bis bi loo xam ne moom lañ àndal dox dañ koy téléphone rek mën nañu maa ngi bërëb sàngam ñu ñëw ànd ak moom euh, dox ci yu bëree baree baree bëri yoo xam ne tey jii bu bis bi ñu accès fii moom bokk na ci ñi nga xam ne non seulement conseil jox nañu ay conseil waaye jàpp na ci ci anam yu bare bare bare ñu ngi koy sant bu waax a baax di ko sant ci kàdd yi di sant tamit Pape Ngagne Ndiaye bu TFM bi nga xam ne mi ngi jataay bi mooy bokk ci kër gi ndax ku xam Alaaji Bu Ndiaye nga xam ne mooy wajuram euh, xam digganteem ak suñu bi mi nga xam ne ci moom lañ soxte ko kon ñu nga koy sant bu baax a baax ci teewaay bi keroog bi ma koy woo di ko yëgal bis bi damaa wax ne ma sëñ bi jël ngay insister lii sama bis la te ni nga ko waxee woon noonu la ko defee defe naa ne kenn jiitu ko tey kon ñu koy sant bu baax baax di euh, sant mboolem ñi nga xam ne ñoo fi teew di wax ne li tax ñu choisir bind maam Cheikh Anta ak li tax ñu choisir euh, maanaam bind ci sous-thème bi nga xam ne mooy grand militant de la foi et du travail gis nañ ne liggéey ak jaamu yàlla mooy aspect yi gën a fondamentaux ci l'islam ndax suñu borom dañoo wàcc ci kaw suuf ngir ñu jaam ko waaye ngir ñu liggéey ndax wala les huit ans ak combien ardi wasta'marakum fiha suñu borom dañoo wàcc ci kaw suuf ngir ñu. maanaam exploiter potentiel bi nga xam ne moom la suuf si di regorger loolu nag euh, Sëñ Tuubaa loolu rek la xamoon moo tax mu jël liggéey ak jaamu yàlla bu ko ci projet de société euh, théorise ko pratique ko yàtt ñi nga xam ne ñoom la àndaloon waaye ki gën a symboliser gën a pratiquer ki gën a incarner maanaam liggéey ak jaamu yàlla ci ñi nga xam ne ñoom la Sëñ Tuubaa yar mooy Maam Cheikh moo tax hésité wuñ benn yoon ci keroog bi nga bi nga xamee ne am nañ projet bu bind ci Maam Cheikh ñu jël grand militant de la foi et du travail def ko suñu suñu sous-thème euh, ay gëstu yu bëree bëri nag euh, rencontré nañ ay ay borom xam-xam ay archiviste ci mel ne suñu mbay mbay gay si la mi nga xam ne moom moo doon yëkkati ay kàddu léegi jox nañ ci ay documents yu bëree bëri ñu dem fu mel ne Marseille nga xam ne suñu gaawoon bàyyi na fa ay traces rawat na ci jamonoy aj Màkka gi nga xam ne moo amoon ci 1928 euh, ajam gi mu àndaloon ak Euh, sëñ Fallou ak sëñ Baye Bousso ñeneen ak ñeneen dem nañ fu mel ne Nantes euh, contacté nañ ay archiviste ci ku ci mel ne njabootu Omar Ba maanaam moo dem euh, foo xam ne buñ buñ buñ ko exploité mën nañ faa am benn document d'archive ne serait-ce qu'un seul dem nañ fa ngir lan ngir valeur scientifique bi nga xam ne moom la bind laaj lii nga xam ne moom la ñu bind encore ndax travail de recherche ak ak documentation dafa bokk ci. Euh, éléments yi nga xam ne dafa nécessaire ci ki nga xam ne moom mooy bind moo tax mboolem koo xam ne dégg nañ fa archive rek wala histoire ba ci source orale yi ak source écrite yi sax amul benn source boo xam ne bàyyi nañ ko euh, lii nag di xam ne benn état bi rek boo xam ne euh, def nañ ko ci dundal xam-xam ndax xam-xam mooy patrimoine bi gën a am solo boo xam ne Sëriñ Tuubaa bàyyi nañu ko te yaakaar naa ne benn taxawaay rek lañu war lañu war a am mooy préserver patrimoine boobu bañ a yem rek ci préserver ko waaye vulgariser ko ba ñu xam kan mooy Sëñ Tuubaa kan mooy ñi nga xam ne ñoom la yaroon jaarale ko ci ci am mbind balaa may daaneel rek damay encouragé ñi nga xam ne ay ndaw lañ euh, yor suñu âge wala ñu mag leen wala xëy na ñoom ñu mag ñu ñu gën a góorgóorluwaat rek ci gëstu waaye ci bind ndax défi yi nga xam ne moo nekk suñu kanam defe naa ne anam bi gën a am solo ci relevé ko mooy ñu xool naka la ñuy bindee naka la ñuy fexee ba maanaam euh, patrimoine bi nga xam ne moom lañ suñ tubaab bàyyi ñu préserver ko ci ci bind waaye ñu préserver ko ci euh, xool ci yan anam dañ ko mën a vulgariser ñu ngi remercier mboolem ñi nga xam ne jàpp nañ ci ci euh, anam bu direct wala ci anam bu indirect ndax dafa guddi ba noppi dafa timis jot na